যোগাযোগ টিভি নম্বর নিউজ am naa benn koo xamante ne moo ci superviseur la bokk encadré Diobass académie muy Daouda Messi Faye kooku moom kenn dootu présenté waa euh, ku fi ñëw ci terrain bi rek xam nga Daouda Messi Faye nekkoon jolu ASC Ndiol Diobass donc bokkaat ci encadré Diobass académie euh, Daouda gis nañu def nañu match ba pare donc yan jàngat ngeen ci am ginnaaw bo ne auditeurs yi nga xamante ñooy seetaan plateau euh, Diobass académie salaamaaleykum tout le monde euh, maa ngi di nuyu ah man la Daouda euh, fay président Diobass Académie bon euh, di rafetlo aussi teewaayu gars yëpp tey ah parce que vraiment ko gis di xam ni bon am solo trop ci walum football et tout nga am ay école de football yu jógee Thiès ñeu fii nii assister plateau Diobass Académie fini je pense que bëriwul duñ ko fi am té gis nañ aussi ci première partie plateau bi prestation jeunes yi def je pense aussi que woné nañ fi football et mën nañ wax ni eh, wane nañ aussi liñ leen jàngal parce que loolu lañ leen fi jàngal en eh, parce que bu ñu mënoon ñëwaat tuuti peut-être si projet Diobass Académie aussi je pense euh, li waral lii yëpp mooy aussi accompagner xale yi ni ba ñu mën a am ay opportunité ci football parce que loolu defe naa xawoon na manqué côté Diobass mais heureusement ñu ngi gis euh, déjà que ni euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy développer en fait ñu ngi koy développer te li xale yi wone si si première partie plateau mu ngi koy wone parce que je pense aussi Diobass Academy moo gagné léegi premier match bi 1-0 te équipe bu jugee Thiès la doon jouer équipe EFAT euh, je crois bien moom la donné jouer euh, moom moo gagné Ligue euh, 1-0 muy firndeel aussi avancement bi la am côté préparation jeu beeg yooyu vraiment am nañ ci satisfaction bu voir, a baax encadré yi sur le terrain gis nañ aussi développement jeu bi am solo trop waaw am na solo trop vraiment ñu deuxième match bi l'Académie. l'académie. côté bi aussi mun nañ nemeeku nañ beneen eh, équipe bu jugee fii ni Jobaas équipe Kisan bi mu ngi fi mu ngi door accès léegi nii en rouge équipe Kër Ibra bi aussi mu ngi fi invité woon nañ ko moo nekk en vert mu eh, muy wonewaat aussi que ni am na yeneen eh, ak structure yi nekk fii ni Jobaas lépp aussi si si si développé footballu Jobaas rek mais depuis depuis biñ ko créé ba léegi je pense que avancement aussi am na ndax école boo xam ne créé nga ko il y a de cela juste euh, presque deux ans deux deuxième année bi moo nekk nii nga mën di am ay résultats yi ni au niveau de Thiès wala aussi nga mën di dem bay organiser ay plateau wa école de football de Thiès di la di la di la fekk si ça veut dire que déjà am nañu reconnaissance si équipe bi ci structure bi et que aussi genre euh, am na ay ay avancées yi fa jot am je pense ni set ni suivre académie bi aussi ay activités ici, Facebook bi xam nañ ni wala gis nañ ni aussi vraiment côté côté côté avancement football ci walum boy mom amnañ ci amnañ ci satisfaction bu a baax ndax ay résultats yu am solo vraiment Ousmane ñu lay sa bu aussi ci présence bi vraiment day am solo aussi seen genre yi fekk di aussi liñ liñ ndax pour jeune la pour avenir yi la aussi jeunesse bi pour la je pense que képp parfois di aussi di dimbali à que ñu visibilité en tout cas merci beaucoup Ousmane. merci beaucoup eh, merci eh, ngi ci eh, ci donc ngi ngi suivre marché donc. ñu am fukki at ak ñett ñoom ñoo ngi présenté wu nii di def seen i prestation. Ndiobassi TV nañ doxal Ndiobassi.